ñun comité scientifique bi euh, sëriñ maam Cheikh Mbacke AIS aljamiatul islamia li xidmati tasawuf moo ko yoroon ñu jox ko mu wax euh, fiñ ci toll ak ren innovation bi ñu def lu ñu indi lu yees ren ci journée bi ndax looy def ay fukki at war naa may innovation bismillah jërëjëf sëñ Cheikh Anta Samb bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama kàddu yu gàtt lay doon leeral liggéey comité scientifique bi nga xam ne moom la ñu Cheikh Mamadou Bassir dénkoon ak culturel euh, dafa mel ne bisub tey bii mooy li mujj ci wàccaayu journée culturelle Cheikh Mamadou Lamine Bara bi ñu doon def li tax ma wax loolu mooy depuis premier novembre euh, booba bisub tey bii mën naa wax ne télévision bu waaye mën a jàpp ci réew mi gis nga fa ñu fay def ay plateau ci wàllu xam-xam ci wàllu wisaare mu Cheikh Ahmadou Lamine Bara nga xam ne palato yi bi ñu ko limee parce que àgg na ci cinquante plateau bokkut ak site internet yi télé yu ngeen xam ci réew mi rek bu ngeen ko seetaanee gis ngeen ñu fay def ay plateau yoo xam ne dañ fa yóbbu ay boromi xam-xam ñuy waxtaanee dunduk Cheikh Ahmadou Lamine Bara ak œuvre am waaye di waxtaanee parrain yi nga xam ne ñoom lañ ko pare parrainé euh, te chaque année ñuy tànn ñeen jox leen ko ñuy waxtaane ñooñu ren ñu tànn sëñ Cheikh Thioro ak sëñ bala Thioro kon dafa mel ne nekkul journée culturelle ñu bari dañ naan wax lii xanaa mois culturel la ndax yaakaar naa ñëpp seetaan nañ lu mel noonu muy liggéey bu sell bu rafet boo xam ne mi miinee sun ñu koy gis yenn bis yi boo xam ne balaa bis bee ñëw télévision boo jàpp muy guddi muy bëccëg des fois da ngay jàppandoo cinq télévision gis ñu waxtaan Cheikh Amadou Lamine Bara loolu nag Cheikh Amadou Bassir mi nga xam ne dëpp depuis 2004 la taxawal journée culturelle Cheikh Amadou Lamine Bara moo def lu mel noonu jëf ju mel noonu moo liggéeyal maamam Cheikh Amadou Bara jëf ju mel noonu mu jaral ko lu ne nag ndax man maa jiite maa jiite comité scientifique bi fu ne la ma doomu aadama woowe ne ma xanaa màggal Tuubaa moo xew wala gàmmu Tiwaawan moo xew loolu nag day wane engagement ak rigueur boo xam ne nekk na ci moom Cheikh Mamadou Lamine Bara maamam jaral ko ko waaye rëccu ko de mbokk yi ku gis 2004 bi Cheikh Mamadou Bassirou taxaw lu mel nii ak fi mu toll ren nga xam ne liggéey nitu yàlla rek moo wóor fiir ci ñoom wax ne yàlla ala inna awliya llahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun alladina amanu wa kaanu yattaqun lahumul busra fi lxayaati wa fi laxirat ba yàlla waxaat ne nahnu awliyaukum fi lxayaati wa fi laxirat yàlla nee na nit yàlla yooyu muy awliya llahi taala yooyu yàlla neena seen ginnaaw sax bu ñu jugee maa leen di teg loxo seeni i mbir seen liggéey ak seenu njaboot boo demee ci tafaasir yu bari dañoo wax ne ndax nu awliyaa ko fi la xayaat doo fi la axirati xayaat dunya gi mooy yàlla ne danaa la sàmmal seen njaboot sàmmal leen seen œuvre sëñ Basiru bokk ci yàlla seppi ci njabootu Cheikh Bara muy liggéeyal sëñ Bara ci xam-xam ak wisaare kan mooy Cheikh Ahmadou Lamine Bara ba tax na liggéey bu sell bu màgg boobu ren ñu am ci surprise bu mag ndax dagg la daana def su nekk daana waxtaan Cheikh Ahmadou Lamine Bara nit ñi di ko dégg waaye ren dafa am loo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci jëmmi boppam moo ko bindoon ci jamonoom ci jamonoy Serigne Touba mu bindoon ci histoire Serigne Touba di leeral eh, Serigne Touba yoonu géej ak ci yéen Jolof ak njaareem ak Touba ak fépp fu Serigne Touba jaar Serigne Touba bindoon ko di ko di ko Serigne Touba Serigne Bara bindoon di ko leeral téere boobu nag làq dafa nëbbu woon ba ñu bari xëy na gisuñu ko woon xamuñu ko woon waaye bi ci Cheikh Mouhamadou Lamine bu Serigne Bassirou Mbacké Khadim bu jotee dafa wax ne téere boobu danañ ko defar danañ ko saytu dana ko jox ay borom xam-xam ñu saytu ko ba nga xam ne incha allahu rabbi ren defar na téere ba mu njëkk mool nañ ko mu ngi fii ci kees ñu teg ci kanam tu dana ko séddale gan ñu baax ñu tedd ñi ak ñi bëgg xam-xam dana leen ko séddale pour ñu xam kan mooy sax ma Lamine Bara téere boobu sëñ Baara mi ngi ko tudde woon dalilul xaayir fii xaybati cheikhi fil jasaayir loolu ko tudde woon nga xam sëñ Baara mooy nettali boppam wax loo xam moo ko dund di ko nettali boppam téere boobu muy téere bu am solo boo xam ne ku bëgg xam histoire Sëñ tubaa bëgg xam Sëñ tubaa lan la doon dund ak lan la nekkoon ak tubaab yi fépp la fépp la leeral ak ñi doon jëflante Sëñ tubaa ci biir te ñoo ñu xëy na am leneen lu taxoon loolu lépp Cheikh Ahmadou Bara leeral na ko ci biir téere boobu téere boobu nag daayira bu ñu naan Fawzul Mutian benn daayira bu am maanaa ñoo xam ne ay ndaw lañ jàng bi ñu waree jàng ne dañuy liggéeyal Sëñ Tuubaa ñoo jël téere boobu saytu ko taxqiq ko defar ba mu njëkk ñu andil ko Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bassirou Cheikh Amadou Bassirou euh, maanaam tiire ko ba incha allah mi ngi ni ñu teg waaye boole ko beneen livre tamit beneen livre boo xam ne moom moo ko moolaat tamit journée culturelle bi moo ko moolaat muy livre boo xam ne sëñ sëñ Balla Coro wala sëñ Cheikh Coro ci lañ ko def ku ñaan sëñ Xaadim Mbàkke docteur sëñ Xaadim def ko téere boobu ñaari téere la Cheikh Amadou Bassirou boole ñu mool ko moolin wu jekk incha allah ci kanam tuut des na ko séddale ci biir mbooloo mi ñu ñu ñu jot yi téere boobu kon mbokk yi lii mooy journée culturelle mbokk yi lii mooy wisaare xam-xam te lii réew mi da ko soxla ndax réew mi li mu soxla actuellement nii mooy dëgg la référence yaa ngi fi lépp nga fi waaye ñu sulli leen ci jamono boo xam ne nit ñaa ngi wuti yeneen ak feneen ak leneen fekk ñun am nañ loo xam ne lu màgg lu rëy la suñu réew mi muy nit yàlla yu ñu am. damaa jàpp ne Cheikh Bassirou ni mu def bu ko kenn ku ne defee fa nga bokk mag ma fa nekk nga yëkkati ko wane ko mu jaral la sa lépp nag ndax journée bi liñ ci def ci moyen mëneesu ko taxaw fi di ko lim ndax télévision yi ngeen gis yëpp dañ ko def en daanaka lu mu am day wax ne moom bu amoon fekkoon ne yëru woon dara taatu gaalam ni ko ni ko waxee ci olof da koy jël jaay ko def ko ci bis bi waaye ndokk yàlla bi nga xam ne lebal na ku mat a lebal ba yàlla sunu subhanahu wa dimbalee ko ba mu am lu mu def ci bis bi loo xam ne ñëpp yëg nañ Cheikh Ahmadou Bassir li mu def ci bis bi kon comité scientifique critère boobu ñu yoroon loolu lañ doon leeral ci liggéey bi boo xam ne plus de cinquante plateau télévision def na ko ak ci internet yi ak fépp foo jaar da nga gis Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon ci kanam tuuti Cheikh Anta incha allah dana indi téere bi nga xam ne moom la sëñ Bara bind ci dunduk sëñ Tuubaa téere bi mi ngi tudd dalilu xaayir mooy tajtalu ku gëlëm ngi bëgg a xam kan mooy sëriñ Tuubaa ak fi mu jaar sëñ Bara noonu la defari téere bi sëñ Bara nag nekkoon nitu yàlla koo xam ne danaan tinu ñëpp danaan yéer ñëpp ñu bari dañ daan xoole beneen côté waaye sëñ Bara ku amul yërmaane yaa rahmaanu a fi ummatal hadi amin wahab lana wahab wahab lana maa nar ci kulla xil dana wax ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jàmmal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nga leen jàmmal te nga may leen lépp loo xam ne dana leen indil njariñ àdduna ak alaxira kon kooku ñëpp la nekkaloon julli ñëpp la nekkaloon waaye di ñaan bay yooyu laa jeexale am na peste amoon na peste boo xam dafa amoon ci jamono yi yu yàgg ya booba Kébémer fa la sëñ Baara féete woon keroog bi dëkk ba jaaxle ñëpp jaaxle nga xam ne sëñ Bara daa jël xalimaam di di tawassul ci suñu borom subhanahu wa taala pour ñaan ko yàlla pes si mu jële ko ci biir Sénégal naam boobu keemeer la ko fekk mi ngi wax ne yaa man lahu chahru rabiu thani bi xurmati ayaati wal mathani ikfir waba yaa rabbana an keemeer wa wa wa aafiya wa takfiya kulla surur xooleen bay dooyu yeneen yàlla suñu borom subhanahu wa taala yow mi nga xam ne yaa moom rabiu thani yow mi nga xam ne maa ngi lay ñaan ci daraje ayat alquran yi ci daraje yi maanaam fatiha yàlla na nga fegal peste bii waa Kébémer boo fa la fekk mu ñaan ko waaye na leen jàmmal ci lépp loo xam ne yàlla suma subhaanahu wa may na leen ko kon loolu mooy li nga xam ne